asalaamaaleykum mbokk yi sunu seetaanateur yi waaw yéen a ngi si Hann TV si émission ganu koor gi tey ñoo ngi fi dalal Ngandi Maami champion bu jógee jàmm gën ñu koy wax Siteu Siteu ñu bàyyi la nga présenté wu. Eh, bay waaw ah, maa la ziar ah, di di bëgg waa si TV quoi ah, di bëgg jàmm gën yëpp waaw yaa cent franc combat boobu dama seetlu ne da nga cee am victoire waaw léegi bii nii nga andiwaat. Euh, nu mu tuddati noo noo ko waxatee. ba bala bi. waaw. ah turkinda. turkinda bi la turkinda bi. waaw waaw. ah yàlla ko dogal quoi nga sama combat ak saa waay dama andi woon doos cent francs doos. allo paa yi ñoo ma am problème. Ah, bii ñëw itam turkinda turkinda ma am problème. Eh, comme que demee na noonu damay wax ak ma ne la ñoon di doo ci 200 nga xam ne day gën a diis waaw léegi doo 200 la waaw. waaw doo si doo si 200 pour nga am ndam. waaw doo si 200 nga xam ne bu ma amee Balla Gaye sax dama ko naan doo ci 200 ma dal waaw waaw. waaw sa combat gi mujjee nii yow lan nga ci def ban heure nga ci def ba ñu daan la. guy eh, gi ba ma ko jàppee pour man suñu suñu terrasse bi nekk sama ko laay yëkkati parce que guy gi waaw guy gi dama nax quoi. waaw ah, guy gi dangay gis tànk yi ndaw na mais guy gi guy ah, du nit guy ah, du nit quoi parce que pesé naa kalkal kalkalaat mais tara tara kiiwul quoi waaw daa mel ne garabu guy nga jàkkaarloo na woon wala non guy gi guy la guy la xam nga rek garabu siddéem yooyu laa woon foo ko ci kanam quoi waaw nga xam ne danga nga ñëw rek jàpp buddi waaw moom xam nga rek guy gi guy la quoi waaw waaw mbëri am na problème guy gi mi guy gi la quoi waaw waaw. waaw si euh, euh, nu mu ma naan Siteu sax waaw waaw waaw léegi ñu xam yow combat yi di ñëw nii instant yi kan nga ci war a laaj ay Boy Niang wala kan kan nga war a laaj ni ah nga est-ce que duñ parce que fan yii dëkk bi dafa métti quoi ak dagg yeeg affaire man Alioune Sarr laa soxla combat président CNG moo laa soxla combat. parce que tag yi ñu tag dafa métti quoi waaw ñooñu fële 60 millions 35 jël ko lekk waaw nag mu jox dama jox Alioune Sarr waaw. waaw ñu laaj la Diène Kairé dafa def benn sortie moo ngi États-Unis nee na moom yow la soxla te gis nañ ni combat boob noonu amateur yeeg askan bi yëpp soxla nañ ko mais est-ce que yow pare nga pour affronter Diène Kairé. ah lay ngomongnya band bobi bobe kwa mangale bobe boy bobo nono duma tujuh tulu kwa eh boy ba kala mujedan kalau kala muje dan do marle le muje dan eh man duma wa man man matan sos dama tur sos muka kep susi ñu koy ñu koy jeex gisuñu ko ba léegi waaw ñu bëgg maa jox benn boy boo xamante ne xamuñu ko quoi marle la fi barki démb rek ñu bëgg mais non man ay Balla lalat laa ay ñoom Alioune Sarr ñooñ man ñii laa gën a surtout Alioune Sarr man ñii laa gën a xiif waaw surtout Alioune Sarr la gën a parce que nu ñu tagg suñu million sama ya, sama ya ma ngi ko bëggoon yóbbu màkk moom mu tagg xaalis boobu noonu xaalisu la pour mais non kon man laj la kon ba sa ndog yi est ce que di chol ma xam yaangi ngi ay ndog di ko jox askan mi wala wala dafa mujjé cool parce que li ñuy ci yow wala waaw xam nga daaw dama defoon mille mille kilos mburu ak CG mu nu mu dagg ne trois cent kilos mburu laa jënd léegi ah ñett mbana café Touba laa doon def mais léegi benn mbana CG waaw parce que parce que si la man Alioune Sarr rek laa laa soxla quoi parce que Alioune Sarr moom la ñu bëri man moom laa soxla waaw. wa seetaanateur yi yéen a ko déggandoo waaw nee nañ Aliou sar la soxlo kon bok nañ ko jéem a combat moko Aliou sar wa seetal sa dernier moom moy lan. waaw sama dernier moom mo ñaar yi ba ñett waaw ngi sant wa jëm gi yeb gis naa ni ma supporté di sant sama ka kafe tu boobu ñëwoon eser. waaw di santu sing siri alxuraan ko waaw ma ngi santu bax ma ngi bax di ko bii waaw di santu ñop waaw di santu ñoom zoo. sant ñoom Mbaye sant ñoom Abdou Diop ñoom Ziguor Ziguor tey contact ba naaw ñoom xum ñoom bekk ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat ñoom melu ñoom màgget jàpp nañ ci combat yi mais foofa la ñoom super waaw ñoo aw ma seen fay aw ma seen fay mais mais mais bala nga ñu jóge aw fayam. waaw bul jooy bul jooy bul seeti ci Alioune man Alioune laa soxla Alioune Sarr rek ñëw Alioune Sarr man man maa ngi fàtte sama ñaari waajur ndax Alioune Sarr Alioune Sarr la ñëw. kon de Alioune mu def métti na nag. Alioune Sarr million yëpp. waaw waaw seetaanateur yi dégg ngeen ko waaw Alioune Sarr la.